mais yow mii tey bu fekkoon ni man mii tey bu fekkoon ni man damaa nekk avocat wala ma nekk dara. waaw buñ ma ko joxee du ma ko jël. du ma ko jël du ma ko atte. avocat Adji Sarr bu ma nekkee avocat Adji Sarr bu ma nekkee avocat Sonko foofu du ma ko laal. doo ko laal du ma ko laal man. ndaxte gis nañu juste Samba Sall mi yoroon dossier bi yàlla jël ma. <laughs> loo gis ci loolu fii laa toog man. ak samay doom. Mhm. ma ni leen lii ñu ne ma ah man leen barki Serigne Bamba ku ci wax doo ko fekkee ku ci wax doo ko fekkee. ñu ne ma lan mani len li ki ko ni nii ma man len ah dox len ñu dem xawma dara de ma dara mi lima gis ñu ne ma ah, man leen neexuma de te lolu am Lolo am waaw Mana daal li ngay digal nit ni ku mën na nga sak sarax na kilifa dine jog wax ci jog wax ndaxte dëkk bi te dara dina tuuru deret dana bari commencé na déjà légui tay lan nga mën wax politiciens yi ak ci réew mi pour deret baña a lan lañu mëna def comme sarax wala dara nga baxé len ko rek légui gis nga ko yi politiciens yi manam ñu ngi def sarax. Mm-hmm. ñu ngi def ñu ngi def ñu ngi def kenn ku ci nekk li nga wara def yang koy def. Mm-hmm. yaa ngi dégg mais lolu <laughs> kenn mënu ci dara tanche kenn mënu ci dara lu am la. barke serigne fallu kenn mënu ci dara ñom ñu ngi def sarax de ñu ngi protester sen bop yow mi so jógoon ma war la top man wala sama dong war la top yow sa Tandian damay jog man defar sama dong bala mo jog top la. d'accord. comprendre nga mais léegi kese bay. d'accord. siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp luy